di wax ne ñu ngi ñëwaat beneen yoon rek ci seen chaîne bi nga xam ne moom la ñuy wax coranique les grands secrets nga xam ne waxtu bu nekk ñu ngi ciy séddoo ak yéen yenn ci secret alquran yi xam ne dana yombal dundu doomu aadama te yeewanal ay mbiram ci zahir ak ci baatin te nag comme niñ leen koy yàgg waxee dañoo ñëwoon ak yéen ci secret bu am doole secret boo xam ne dana am yenn yoo xam ne sax duñ ko wax fii ci YouTube bi lu may rek képp koo xam ne yittewoo nga ko rek incha allahu da ngay jokkoo ak ñun incha allah bu ko defee ñu jox la tegtal yooyu ndaxte secret la yoo xam ne yoon mayewut ñu di ko tasaare ci mbooloo mu bëri waaye daal képp koo xam ne daal incha allahu soxla nga nopp bu wóor boo jokkoo ak ñun incha allahu danañ la tegtal ni nga xam ne noonu lañ koy defee ndax secret bi ngir ci nopp lay wax ngir nit koo xam ne bëgg nga nit mu të wala nit koo xam ne jigéen koo xam ne bëgg nga sa jëkkër jublu la bu baax a baax a baax walla yow mi nga xam ne waxtu wu nekk sa jëkkër mi ngi lay wan ginnaaw danga xam ko walla yow mi nga xam ne gis nga ne sa borom kër mi ngi jublu beneen jigéen bu dul yow te di leen di gënale wala yow mi nga xam ne gis nga ne sa borom kër mi ngi ci tànk utal la wujju te bu sottee ki muy indi dana la génne ci kër gi doonte yaa ko fa jiitoo lu bëree bëree bëri bi muy métti yow la woon incha allahu buñ jokkoo ak yow danañ la defal mbir yoo xam ne incha allahu boo ko jëfandikoo yee yàlla dana la defal jàmm ci loolu nga bëgg sa jëkkër dana dellu siwaat ci sa loxo ni nga xam ne noonu la xar di toppee boromam incha allah yow mi nga xam ne yaa yaa yaay góor tamit incha allahu am na soo gisee ne sa soxna mi ngi lay indil ay jafe-jafe waxtu wu nekk yéen a ngi nekk ci ay jafe ay coow ñu ngi yor ay mbir yoo xam ne itam incha allahu bu soobee yàlla boo ko jëfandikoo yee yàlla dana la defal jàmm sa soxna dana mujj topp la ni xar di toppee boromam incha allah tey nag dañ leen di indiwoon secret secret bu am solo secret bu doy waar secret boo xam ne comme niñ leen ko waxee danañ ci nëbbu yenn yi sax ndax duñ ko tasaare fii ci mbooloo mi ndaxte bu ko ku kuy yàq wala ku bëgg a lor nit jëlee rek dana ci yàq lu bëree bëree bëree bëri ndaxte secret boo xam ne boo ko defee incha allahu ki nga xam ne moom nga ko def dootul gis dootul dégg lu dul yow dootu tal dootul bëgg lu may sa yitte lépp loo bëgg incha allahu dana ci dox lépp loo xam ne mooy sa yitte mooy nekk ay yitteem lépp loo xam ne maanaam sopp nga ko lu muy sopp lay nekk incha allah secret bi nag pour bind ko lu yomb la da ngay bind bismillahi rahmaani rahim fanweeri yoon ak ñett 33 fois soo ko bindee fanweeri yoon ak ñett 33 fois yooyu Bismillahirrahmanirrahim. rahmani yi ci nekk yépp nag da leen di tijji boo leen tijjee ci fanweeri bismillahirrahmanirrahim yi nga xam ne moom nga njëkk a jot mim yi nga fa tijji da ngay def sa tour moom ngay def ci mim yi nekk foofu yépp sa tour nga fay def ki nga xam ne moom nga bëgg mu topp la ki nga xam ne moom nga bëgg mu déggal la ki nga xam ne moom nga bëgg mu jublu la turam moom ngay def ci mim yi nga xam ne moo nekk ci ñetti bismillahi rahmaani rahim yu mujj yi ñi nga xam ne moom mujj moom turam nga fay def fekkee ñetti bismillahi rahmaani rahim la bismillahi rahmaani rahim ñetti miim ñoo fa nekk miim gi nekk ci bismi miim gi nekk ci rahmaani miim gi nekk ci rahimi foofu ngay def tur yi nga xam ne moom moom nga ki nga xam ne moom nga yittewoo mu déggal la ki nga xam ne moom nga yittewoo mu topp la gannaaw loolu dangay ngay bind waaw waaw yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci daara wala képp ku jullit sax wala nga toog ci ngi daara danga xam waaw ndax xaraf la boo xam ne ci alquran la nekk moom nag da nga ciy bind lu toll ci trois mille trois cent trente trois trois mille moom nga ciy bind soo ko bindee trois mille trois cent trente trois yooyu da ngay jël 3000 fois yi nga xam ne la waw ba mi 3000 fois turu ki nga xam mom nga bëgg lo wax mu ne waw mom ngay duggal ci waw yoyu noonu ci 3000 fois waw yi turam nga fay def yow mi nga xam ya bëgg loo ko wax mu ne waw ci 30 333 waw yi ci ngay duggal ci tur am na nag xaatim boo xam ne moom lay àndal xaatim boo xam ne sa tur mooy nekk ci kaw tur ki nga xam ne moom nga bëgg mu déggal la topp la loo wax mu dem ci turam ngay bind ci suuf nga def ko ndombo nga takk ko ci sa ndigg soo bindee loolu yëpp nag ba noppi da ngay fexe fekkee sa borom kër la wala mu nekk sa soxna da ngay fekk loo da ngay fexe ñaar yi nga xam ne muy 33 bisimilah rahma 33. bisimilahi rahmaani rahim ak 3333 yi nga xam ne moom mooy waaw yi dangay fexe bind ko def ko ci ndox nekk saafara nga fexe mu lekk ci wala mu naan ci lu toll ci ñetti yoon incha allah boo ko defee mu ànd ak ndomb goo nga xam ne ci turam lañ koy liggéey yow mi nga xam ne yaa bëgg mu topp la ak yow mi nga xam ne ki nga xam ne moom bëgg moom nga bëgg mu topp la incha allah bu soobee yàlla boo ko defee lépp loo bëgg ci lay dox sa diggante ak boromam sa diggante ak moom dana mel ni xar ak boromam incha allahu dana mel ni xaj itam ak boromam képp koo xam ne itam bëgg nga ci ay leeral mën ngaa ko ak ñun danañ la leeral gindi la su nekkee ne gis nañ ne ci lu baax moo tax nga soxla ko incha allah danañ ci jëflante ak yow ndax loolu moo tax sa xaatim bi dugaluñ ko ndaxte buñ ko dugalee dana am ñoo xam ne danañ ci lor ay nit yu bëri te bëgguñ ci loolu donte xam-xam la xam amul benn xam-xam bu bon ki nga xam ne mooy jëfandikoo xam-xam bi mooy bon wala mu baax waaye xam-xam yépp benn la ñu ngi sant ñu ngi gërëm di leen wax na ngeen abonné ci chaîne bi ngir di mën a jot yeneen ci suñuy vidéo wala di mën a partager suñu vidéo ngir jagleel yeneen jaamu yàlla yi ñu jariñu ci yàlla yàlla may ñu dégg may ñu topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala